lati yaraax ñu ngi leen di nuyu caatu yaraax tey ñu ñëw fii ci sa open press ñu leen di nuyu yéen ñëpp suñu mbokk internet yi fu waay nekk ci àdduna tey caatu yaraax mooy def open press am fii ci yaraax ñu ñëw fekk fi say mbokk say am di jàmm say xarit rawatina say magu mbër yoo xamante ni fekk nañ leen fi joxe exemple la ku ci mel ni Moussa ñu gis ko fi caatu yaraax ngay bëreeg serpent ban yëg-yëg nga am ñu bàyyi la nga nuyoo nuyu àdduna bi lay seetaan yëpp. waaw onju billah bismillah ginnaaw ba ma sant yàlla julli ci bi sant suma ñaari waajur maa ngi nuyu àdduna di nuyu waa yaraax yëpp di nuyu waa Kër Massar ñi ma teewal yaaw jaal waa buun di nuyu ñëpp ñi nga xamee ne ñoo fi teew ci bonne presse bi écrit askan bu yaraax mbëri écrit yaraax Pablo Dieng ñoom Moussa Ndoye ak ay élément maa ngi sant ñëpp di sant journaliste yi fi xam ne ñoo fi teew ah. waaw waaw ñu ñëw bisimilah. ak waa caat dama laa fekk Gambie gis la ngay entraîné lu métti nga ñëw fii sëñ Bas mii bi mu ko gisee nee na ma est-ce caatu yaraax bi moom laa fekkoon Gambie ma ne ko moom la lan moo la yóbboon Gambie ak lan moo tax nga ñëw Sénégal pour combat bëri bi. waaw ñun yaraax lañ dëkk te maanaam dëkk bi nekk na dëkk boo xamee ne boo fi duggul doo xam ne dëkk mu rëy la te dañoo soxla ñu ne ci ginaaw Moussa Ndoye nag ak yeneen éléments yi fi nekk muy ñoom Wos Jambar ñoom Modou Sodo ak champion yi neex Yaraax yëpp di sa gërëm tamit waa Dalifor ndax gis naa seen taxawaay yee ñun nag li ñu yóbbu woon Gambie mooy liggéey ndax grand combat lañ am du lu ndaw ci ñun suñu premier grand combat la te dëkk bi dafa soxla ndam maanaam duñ def leen loolu maanaam dem uti doole mu jaral ñu nag trop ndax maanaam bu fekkee dama dem Gambie pour serpent kese kon defuma làmb dama dem dama dem Gambie pour liggéey ak adversaire yi nga xam ne ñoo sama kanam yëpp ak àdduna ci làmb ñoom ñoo ma tax liggéey te duma ma di ci liggéey aussi tamit loolu ma yóbbu woon Gambie. keroog damaa gis signature contrat bi. serpent ngeen mel ni ku ñemente yéen ñaar est-ce que ba di ngeen xeex wala ngeen bëre. waaw loolu moom doo koy déewee supporteram serpent su ma jàkkaarloo moom xam nga ne du ma xool sax bu bët signature contrat bi serpent si giwul xool ma ñun dañuy liggéey ay ndaw lañ te ndaw bu liggéey ba taxaw boo ko nee jàkk xam ne góor nga jàkkaar lool serpent du ma xool ma koy xool séquma koog moom sax aca caatu yaraax dañuy gis nga jógee ci adversaire boo xam te ne bi mooy dab daan nga daan ko te boo xoolee adversaire bi nga bëreel ak ki ngay bëgg a bëreel dafa am différence ndax xam nga bu baax a baax qualité gi nga xam te ne moom ngay bëreel muy serpent noir waaw macha allah ci kàddu gi ci euh, question bi euh, serpent dafa njool deux ziga mi nekk parcelle moo ko sut deux ziga ñaari ji laa ko daan moo sut serpent te ëpp ko doole aussi tamit dab daan njool la gis nga ko ato aussi tamit dafa njool man mosuma bëri ndaama waaw kon serment waru ñoo mën a jaaxal. mais ngay bëre boo xam te ne bii maanaam yaram yi dafa màndi ci bëre fu mu jàpp rek day bëre ndax bàyyi nga xel bu baax a baax sa diggante moom. waaw boo seetaanee ay combat am seetaan combat caatu yaraax di nga def différence ndax wax dëgg fa yàlla ñun duñ jàpp di bàyyi te ci kàttanu yàlla laa ma judd yàgg serment du ma ko jàpp di ko xool déedéet loolu taxul Fallou Ndiaye fay ñu waaw moom nag c'est normal parce que mbër moom boo ko seetee li muy wax rek bokkut ak li muy jëf te man yaakaar naa presse bi chaque jour li ma fi wax rek bu ma demee stade moom laay jëfee waaw. jërëjëf Serpent dégg nañ kàddu yi nga tontu léegi léegi euh, jërëjëf Caatu yoof dégg nañ kàddu Caatu Yaraax dégg nañ yi nga fi joxe léegi léegi mais boo xoolee yaa ngi bëre xam ne mooy Serpent nee na da nga koo jàppee mag te nekkul guy gu daar du may benn xale di jaar ci koom di yéeg yow lan ngay waajal bis parce que sànq ba léegi wax nga wax ba teg Serpent xam nañ ci moom bëre ak xeex lan ngay wàcc moom waaw li may wàcc moom mooy mu ñëw stade def mobilisation bu forte ànd ak Caat mais sama doomu nday wàccee tambour major bi ñu ñëw def ambiance ci stade bi ci yar ak teggin ànd ak suñu ko si parce que ci loolu la ñuy formé ci yar ak teggin bu ñu ñëwee bëreeg serpent incha allahu rabi duñ taxaw di ko wan ne ñun dañoo fay pour ñu taxaw wala pour ñuy reculer di génn stade bi. li ma koy ñaan leen kese la mooy que moom keroog nee na caatu yaraax na taxaw di ma xaar maay def lépp bu dee loolu kese la man mun naa bañ dem ci làmb ji suñ ma fayee pour ma dem bëree ma taxaw di xaar sama loolu yëpp samay supporter la au contraire. moom na taxaw di ma xaar man ma ñëw def lépp. mais boo déggee neen dalaa xam te xamoo ko parce que dalaa yàgg a suivre. loolu am na xam nga ma wax la ko avant maa bëreeg dab daan serpent lañ ma jox mu bañ dem làqatu mu bëreeg dab mu dem ci Fallou Ndiaye ne ko nañ ma jox caatu yaraax mais nag dégg naa mu wax benn kaddu comme li ma waxoon rek naan caatu yaraax pare naa ko bu yàgg toog xaar loolu dafa yomb may yëg ci diini di entraîné lu métti nga naan pare naa la bu yàgg saa yi loolu yanul maanaa. mais est ce dox. mu yàqu mu retourné jëlaat sa euh, avance. est avance bi jëloon na ko semaine. mu dem ci Fallou ne laa mujj arrangé wu ma. waaw loolu du ma moom. mais est-ce que liggéeyul lu tax li war a mën a daan mu tax mu jël la. ci kàttanu yàlla mënul liggéey lu ma gis su ñëwee li may liggéey laay wane man. bëgg làmb daa bëgg mobilisation tey ñii ñëpp bu ñëwoon làmb ja yaakaar naa sa adversaire du am fu mu toog est-ce que ñii ñëpp dinañ la gunge ci làmb ja ah, waaw lu bët di gis moom yar na maanaam yaraax ba nga dugg see fii bu doon caata yaraax faalewul waa yaraax wala waa yaraax faalewu ñu ko doo gis lii te suba mooy serpent moom mooy moom mooy euh, mbasa mbasa suba mooy signature maanaam moom mooy ëppan boo fa demee boo gisee trente personnes bëri nañ looy wax ni da ngaa bëgg wax sax bëla ba kàppoo yi saa ñëw ci stade bi nga xam ne ñeen lañ foo leen jëlee ñii nii waa lii yaraax la boo ñëwee boo ñëwee ëppan pression Moussa di nga fa fekk boo ñëwee ci noo sodu ak waa Dalifort yi ñëw waa Kër Massar ñëpp ñëw fi nga xam ne waa alaayi paate waaw yaa ma gën a xam kon nga xam ne lii du neen dëkk nga ñëw ci dëkk man deewu ma di wàllu yaani fenn boobaa kenn ma topp mais sama dëkk laa toog xaar gars yi ñëw waaw wax ndax boo gisee lamb bi xew keroog ñu jégal lan ngay wax ñi nga xamante ni dañoo ànd ak yow ndax keroog gis nañ ci stade bi nga xamante ne mooy arène nationale diggante Alioune Seye a ak ñàkk jariñu lafa xew rafetul ci làmb lan ngay wax ñi nga xamante ne ñoom nga àndal. waaw keroog wax naa ko Mak TV dama koy waxaat fii ndax monde làmb dafa sensible ñun amuñu lu làmb dañoo bàyyi jàng bàyyi suñu métier lépp ne suñu option làmb la kon li xewoon ci stade bi mu fekk fa ministre bi Matar Ba fekk fa président CNG ñun ñoo ngi koy ñaawlu te dañuy lancé appel CNG am compréhension xam ne jeunesse moom mooy doxee noonu fëgër ak doole làmb xel ak du xel làmb la mais ci géew gi la ñuy doxalee xel te géew gi nag keroog jum dafa am parce que ki yàq làmb ji du mbër kon ñàkk deful dara Alioune Seye deful dara Alioune Seye dafa indi fëgëru jeunesse ñuy ñaan CNG nag ñu jégal leen ñun loolu du daal ci kàttanu yàlla journée bi incha allah dinañ indi non violence indi yar ak teggin sécurité yar mu ñëw esat CNG bu leen neexee bu ñëw esat parce que waaye rax yar ak teggin lañ xam bu ñëwee ñu toog ci dal ak teggin mais dañuy ambiance nag kenn mënuñu ko tere kenn mënuñu ko tere dañuy ambiance mu saf aca caat ku ne xam na ni bëreetoo Iba Mar Diop arène ngay bëreel mobilisation bi ñaata kaar nga fas yéene dereen jëlee ko yaraax yóbbu ko arène nationale pour sa diggante ak Serkan waaw loolu ñun duñu jël ay kaar dañuy dox dañuy dox waaw sereet yi sax non bu kenn dem moto yi dañuy dox parce que arène nationale moom nga jóge tali ñëw fii kon ñun ñoom moom arène ba buñ fa ñëwee ci kàttanu yàlla jiitu fa serpent du am place Fallou jënd naa ay biyam boo amee loo koy wax mu lay seraan loo koy wax muy serpent. Fallou Ndiaye kan serpent nga am ci làmb ji jaaxaluma su ma la dabee nga xam ne caatu amul morom boo génnee ci caatu nag ngay comprendre kuy caatu loolu mooy yóbbante bi. gàtti oto càmbure. laatu baaxul la la ma jaare.